gouverneur diwaanu ndakaaru mooy yëgal askan wi amal gu ñuy amal audience di ndaje mënu ubbil ñëpp jëm ci waxtaane gëstu yi ci njeextey projet bi nga xamante ni moo jëm ci yeesalaat réseau transport en commun bu ndakaaru di am ci wàllu environnement ak nekkinu askan wi moo même ndaje altine bii lay doon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet 2022 ca chambre de commerce ak industrie bu ndakaaru li ko dalee 9 heures ci suba gi ndaje mi ni ko article bu arrêté numéro digle dim ndaje mu jóg ngir baaxe askan wi la tukkee ci gëstu yi ci étude bi ci njeexitey projet bi rawat rawatina ñenn ci jotoon sàkku seeni xalaat ba noppi ci boobee projet rapport bi ñeel étude yi mën ngeen caa jote bu ngeen ko téléchargé ci site bu CETUD ci www.cetud.sn seeni njàngat xalaat ak yitte ñeel yeesalaat gi ci réseau transport en bu ndakaaru mën ngeen ko yónnee ci bataaxal bu ngeen jaarale ci internet bi ci rtc arobas cetud point sn di liggéey saa su ne ngir dem ak dikk bu yomb te sax ci diwaan bi